yee salaa léegi ma meen kal xalil yaa ngi baay gën naa la fil si loo nekk nag cool tranquille baay maa ngi wax yow ngay tirisal kanam baay baay man xamee wala yërëmtalu rek yaa ngi ah yee bi nii mais xoolal af waa yow affaire ça tombe bien sax parce daa am benn affaire bu ndaw bu fi indi woon xam nga benn bit nii pour nga may ma si benn affaire puisque yaa ma ko tàmmal léegi xam nu muy demee. waa léegi cegit yow am ma may la ok. Thank you. sala man ma tànn def rabbi te doonu li ma mës a rëccu wër rabbi xam naa ni doonu yoon bi gën a leer yoon bi gën a yomb wante man fa laa tànn romb man dama judd ci rabbi te kenn ngeen tew ma ma tëye maag di jàng te kenn teet tew ma ma maam ma maaga tudd xali lëpp ci orphelin li nga doon sënt mbali bro fa orphelin man bir gen bi mel ni melentaan buy jéggi deex fëy ba tas séro gis te fees way dikk suuf si jara sëgg bay yeah bwana ngombe vides bugga bugga boy la mbalu bur bi yàlla jël si ku ne ci ngay def balaa ki te tegu sa boolu muñ maa nee na ma xali te nga jàpp sa jàng ji waa nee ma xali te nga topp yoonu jàkk ji man ma tontu leen ñaanal leen ma rek dina baax ku yàgg te sa di ëpp rek dina fa sa baax deen kan moom mooy tere génn ci yow du kii gis teru kenn see now i telling you now non waaw rafet na billaahi mooy onze moom may nii billaahi bis nu mu dee noonu wax yàlla ba da ngaa man xamee mu lay affaire de timide nii quoi mais wul ma xale la xam nga ma ko tàmbal da mooy yooyu noonu ma ñëw xam nga kii ko sama vidéo def fa may ma ko bàyyi may la acapella ah? yëpp ok mais xam waa <laughs> woowee ma ambulance aw ma code fuck sa feureuse no sens interdit man damay rab ba dugg sax feureuse game gi mel ni concours ku gën a cuune zéro talent rab bu doonoon jëmm man la bopp bi doo sax talent rab international bee ginnaaw gal seen gi mel ni lu des ginnaaw sa rab retardé war la bet ba mun te romb gin gi neew taaj gën laa wax naka tooma comme naa jël gi neew ay rappeurs yi xamul tout saxanaa bi tax qualité bi gën di neew ñëw air ngeen di woote tax ti def jafe ràññee du ma numéro may wax saa su ne mooy ndox amul fi nga jëm man li may told saa su ne mooy man xam naa fi ma jëm yeah that's my fucking way nigga. yeah kenn. baay bëgg naa meen bëgg naa meen. wóor naa la baay rafet naa. rafet na baay yow xoolal. yeah dama koy balancer ji léegi léegi nii faal. mais bu ma tudd next ah. waaw rafet na. jaajëf waay yenn jaamu bëggee bro jaajëf.